aus billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen ndokkeel di leen balwaq di rafet lu ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu ngi ndokkeel ñëpp ci weeru koor wi di ñaan yàlla yàlla nañu suñu borom nangul jaamu yàlla yëpp te jéggal ñu rëcc rëcc yëpp yàlla def weer wi yàlla nañ ko woor ay at yi at yu bare bare incha allah ñi mu fekk ci jafe-jafe yàlla teggi ko ñi mu nekk ci njàqare yàlla yàlla teggi ko ñi wér yàlla yàlla saafara tey ñu ñëw ak yéen ci bunt bu am solo encore ñu waxtaanee gént feebar wala seeti ko feebar bunt la boo xam ne nag dañ ci indi première partie mu des presque yeneen ñaari partie li may njëkkee mooy góor danga gént góor goo xam ne amuloo soxna yow sa jëm bopp yaa gént feebar te amagoo soxna day firi soxna ci yow góor amagoo soxna gént feebar day firi yàlla mën na laa may soxna bu dee góor goo xam ne danga am soxna danga gént feebar day firi njàqare xat-xat ak jafe-jafe yu jeex baax na ci gént bu dee feebar yi nga xam ne mënuñ tuddee al amrat aadiya maanaam feebaru bopp yuy métti yaram muy tàng soj biir yu métti genre feebar yooyu nga xam ne yu sew sewaan la yoo xam ne ñun ñëpp tàmm nañ di ko mu di ñu dal danga gént mu dal la baax na ci gént day firi wërsëgu mm, ah, xaalis wala ay jumtukaay ala kulli xaal jumtukaay sama ko dédd kër dugg ci oto dugg ci yeneen ak yeneen dugg si kon baax na ci gént lu ci mën a doon danga gént xam nga ne ci diw la dafa feebar nga gént gisaat ko diw dëggantaan dafa feebar xaqiqatan nga gént gis ko mu feebar ci gént day firi kookee day wóor ci feebaram maanaam euh, maam Góor Sarr daa feebar nga tëdd nelaw géntaat mu feebar day firi feebaram boobu da ciy wér kon baax na ci gént jigéen ji nga xam ne dafa ëmb dafa gént feebar day firi am doom gu yomb ba la mu am itam muy doomam du dina ko def mu nekk doom ju mucc te ànd ak wér baax na ci gént jigéen ji ëmb ji nga xam ne nag dafa nekk ci néegu sa yéex am doom yéex a am doom lool ba doon ñaan yàlla am doom mu gént ëmb mu gént feebar day firi ëmb ci moom maanaam jigéen ji sëy amoon jafe-jafe am doom nga tëdd nelaw gént feebar dab la day firi ëmb baax na ci gént nga ne bu fekkee nag am naa doom maanaam yaa ngi sëy am nga doom amoon benn problème ci am am am doom day firi euh, stabilité xaala nafsiya maanaam ay stress yu jeex ay njàqare tiitaange yu dañ ci sa bopp baax na ci génn Euh, xale bu jigéen boo xam ne euh, wala boog danga gis waaw xale bu jigéen bu amagul jëkkër nga gént feebar kii moom feebar baaxul ci moom day firi ay stress ay jàqare kii boppam baaxul léeg-léeg dina firi ñàkk am kàttanu atteindre ay maanaam ay mbiram du ko mën a yeggali amul capacité pour réaliser ay rêve amul capacité mottali ay yéenam baaxul ci gént xale bu jigéen boo xam ne dafa am ku lay labat ban di la waaj a takk nga tëdd gént feebar maanaam yëg nga ne daal yow yaa ngi ci ay waxtaan ba dara desul doo takk nga gént feebar baaxul day firi échec ci ngoro googu baaxul ci gént jigéen boo xam ne amoo jëkkër danga gént ku cher ci yow sa papa la sa yaay la sa xarit bu la jege lool sa frère bu la jege wala koo xam ne daal cher na ci yow nga daal di gént gis kooku feebar te en réalité jamono yi nga koy gént feebarul bu dee daa feebar dellul fu ma la kii feebar nga gént mu feebar day firi wér ci waaye kii bi nga koy géntal lool feebarul dara jotu ko gis ko mu feebar baaxul day firi ay problème sa diggante ak moom baaxul ci gént loolu moo dellu ci xale bu jigéen léegi bunt bi muy indi mooy danga gént seeti feebar seeti aji feebar dangay gént seeti malaat dangay nelaw nga gént dem seeti ab malaat ci biir gént hôpital nga dem wala këram wala et cetera balaa ñu ci ñëw ñu ngi leen di wanaat su leen cangat yi ñu leen doon woon chaque jour ci benn cangat bu am solo lool ci wàllu ubbeeku ci wàllu bayre ci jigéen boo xam ne da nga bëgg am borom kër euh, kuy wut liggéey mu të kuy toppatoo ay kayit et cetera et cetera ku bëgg tukki mu jafe lu mën a doon mën ngeen jokkoo ak ñun incha allah kii beneen la boo xam ne ku faj lépp loo xam ne lu aju ci cat la rab la seytaane la cat euh, moo la sonal ay feebar sa faraan feebar sa daan liggéey moo la jàpp ak lu mën a ngeen jokkoo ñun incha kii itam comme ni ñu ko waxee jigéen boo xam da doon am doom ba ci biir mënatuloo am njaboot wa illaa nga nekk ci sëy am doom jafe la lool mën ngeen jokkoo ak ñun incha allah voilà ku soxla yow mën ngeen jokkoo ak ñun da nga ku feebar xale bu jigéen bu amul jëkkër la njëkkee waxuma dangaa feebar peut-être dangaa feebar wax naa ci li ma ci wax danga gént dem seeti nit ku feebar hôpital day firi njàqare xat-xat yuy dañ baax na ci gént bu dee nag danga gént seeti sa waajur wu jigéen wala sa waajur wu góor mu feebar nga dem seeti ku baaxul day firi ay problème wala jafe-jafe wala réeroo sa ak sa waajur kooku baaxul ci gént góor gu amagul soxna nga gént seeti aji feebar ji ci biir hôpital baax na day firi njàqare ak xat-xat ak i soucis yuy jeex danga gént nekk ci biir hôpital di seeti ku feebar kazaalika day firi problème ak i soucis yu jeex baax na ci gént doo gént aji feebar mu gént seet si la yow diw xaqiqatan dafa feebar en réalité diw dafa feebar ci biir dëggantaan nga gént kooku feebar seetu woo ko waaye moo la seet day firi day wér ci feebaram baax na ci gént bu fekkee feebaru ci yow la dellu day firi soucis problème ak njàqare yu dañ ci yow da nga gént seeti ku feebar waaye kooku xamuloo ko yënga ne daal am na ku feebar koo ñëw seet xamuloo ko day firi baax na ci gént danga nga gént dem hôpital seetu ku feebar te kook nga seeti faatu na ki génn àdduna ba pare nga gént gisaat ku mu feebar ba nga dem hôpital di ko seeti wax naa leen ci vidéo yi ma ne aji feebar aji génn àdduna nga gént gis ko mu feebar baaxul day firi ak foo ko mën na gisee sa waajur la sa xarit la ko mën a doon kooke dafa soxla nga defal ko ñaan ak sarax surtout bu dee sa waajur góorgóorlu ci ñaanal ko ak saraxel ko bu dee koo xamee ñaanal ko saraxel boo xamee mbokkam nga waxal ko ñu génneel ko sarax Euh, kon jigéen ji nga xam ne yaa ngi sëy da gént kenn ci sa famille mu feebar baaxul day firi ay jafe-jafe ki xat bu fekkee nag feebar bi hôpital la nekk day firi jafe-jafe xat-xat yooyu day dañ gént nga génn ci sa biir famille daa feebar ci kër gi la nekk baaxul hôpital la baax na ci gént voilà euh, góor danga jigéen boog danga gént sa borom kër feebar ba nga nekk di ko toppatoo ak yu mel mu baax na ci gént lan lay firi day firi changement ci wàllu dundin yokkute maanaam ak réussite ci say mbir waaye stress ak njàq rek soucis yu dañ jigéen ji sëy ba tas ak ci sa borom kër génn àdduna ñoo ko bokk nga gént yow ci sa jëm bopp yaa feebar day firi problème ak i soucis yu dañ ci yow bu fekkee da nga gént yow ci sa jëm bopp yaa feebar bu dee nag dangaa gént koo xam ne xam nga ni kii diw la mu feebar xam nga bu dee ñële waxoon naa la baax na waaye kii dangaa gént xam ne kii diw la jigéen ji sëy ba tas wala ko sa borom kër génn àdduna nga gént xam ne kii diw la nga gént gis ko mu feebar baaxul day firi jëf joo wax jëf joo xam ne rafetul maanaam jëf ju ñaaw ci yow dangaa gént sa jëkkër joo doon sëyal ba ba tàggoog moom nga gént gis ko mu feebar ñu bari suñ ko géntee dañuy jàpp ne seen jëkkër joojee tàngam da koy dal te gént gi yaa ko moom baaxul day firi ay problème yu baree baree bare ci yow mi ko gént sa borom kër boo sëyal ba tas nga gént gis ko mu feebar ci jigéen baaxul waaye bonul ci sa jëkkër jooje ci yow mi ko gént la bon ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partage yi ko am laaj ngeen jaar ci yoonu yi may wax toujours defe naa xaw nañ ko ñu ci page bi wa ma zalika allahi bi aziz wa salaamu